الإفراد الفرد إما مطلق من فارد ذا راو به فإن لضبط باعدا ردا وإذ يقرب منه فاحة أو بالغ الضبط فصحح حيث عن ومنه نسبي بقيد يعتمد بثيقة أو عن فلان أو بلد فيقرب الأول من فرد ورد وهكذا الثالث إن فردا يرد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 ibn abi bakr as-suyuti ash-shafi'i radiyallahu anhu bil min awal al-kitab ilayhi al-afrad al-afrad uh, xeet la moom tamit ci xeeti xam-xamu xadis yi nga xamante ne war nan koo xam mokkal ko takk ko jàpp ko xàmmee ko uh, al afrad kon moom lañu ñu war a dugg inchaa allah mu ne maanaam pluriel la ci fardu pluriel la ci fardu hmm, maanaam hadis xadis boo ne kenn nit moko ko Solo. ko ci lagi. place ci càllale gi manam benn mayon ci chaîne bi ben bërëb ci bir càllale gi budé kenn rek lañ fay fekk jamono jojo lolou lañu tuddé fardu a ah, ne mom nak lay définir loy wax mu al alfardu imma mutlaqun man farada راو به فإن لضبط بعورة رد وإن يقرب منه وإن يقرب منه فحسن أو بلغ الضبط فصح حيث عن من الفرد إما ندال من بوبو جهم حديث وهم الفرد من إما ندال دينك لو خمن سوات مطلق لنو بايلا دنكو جايل رك دون منير جنرال لنو وخي فرد fardul mutlaq loolu mooy fardul mutlaq ndax ñaari parti la dafa am fardul mutlaq ak fardul nisbi léegi fardul mutlaq moom lay njëkk a définir mu ne maa mooy bépp xadis boo xamante ne infarada wéetoo na raawin aji solo bi ci moom kon bépp place ci biir xadis bi ci càllale gi su fekkente ne dafa am kenn nit rek koo xamante ne moom moo solo xadis boobu kooku moom la ñuy tuddee fardu ba pare loolu dañ koy wax fardu mutlaq mu fa in bu fekkente nak nag li dabtin ñeeluk tak? manam lu aju ci mbirum takk moom ba'uda daf ca sori manam dafa sori lool wolif tak? manam mom du tak lu bari mën ta tak manam mokal? lañ wax du tak mo xam mokal la euh, comme ni wax parce que xam nga am na ñoo xamantene par exemple seenum mokal seenum xel ci bopam mo dul tak mais yor nañ téré yo dañ ci bind loo wax rek ñu bind ko ci wala ñu enregistrer ko saa ñu ko bëggee waat dañuy tegaat cassette bi wala ñu teg euh, fichier MP3 bi mbaa ñu bindaat kayit di rek daal di mën a xàmmee ni lii la ñu mën koo nettali loolu moom kooku dabt kitab la am mu am dabt sadre na nga wax dabt fuaat dab dabt xalb yooyu dañ ko koy wax maanaam mooy lu ñu takk ci xol boobu su fekkente ne ñaar yëpp benn possibilité mën na ci am waaye su dee daal sori na ko daal euh, rodda kooku dañuy delloo xadisam parce que moom comme kenn rek mu nettali wax ji ah te te moom ay mbirum moom dëgërut dañuy ret dañuy delloo xadis bi wa in yaqrub bu bu su fekk wa iz soo fekkente ne yaqrub bu dafa jege minhu ci moom maanaam mooy saa yoo xamante ne dafa jege ci takk maanaam eh, ak mokkalam mooy mooy comme ni naan xafa dabtuhu comme noonu ni mu waxee qalla dabtuhu comme ni nga xam ne noonu la wax eh, alxasan hmm? المرتضى في وصفه ما اتصل إسناده أه، أستغفر الله المرتضى في وصفه ما اتصل أه، المرتضى في حده ما اتصل في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل أه بمجح كل أه، الحسن ولا léegi kon euh, kon bi naqli adlin qalla dabtuhu mooy ak takkam dafa néew kon kooku tamit euh, su fekkente ne moom li muy takk waa ji individu bi maanaam li muy takk moom dafa néew maanaam ki solo xadis bi euh, minhu maanaam yaqrubu jege na minhu ci ci mën a takk fa xasan xadis ba day daal nekk xasan awwal boog balaxa mu jote ak dabta ak takk maanaam mu yegg ci njombartal ak takk maanaam vraiment ñun xam ne kii kat ku mën a takk la moom day mokkal wala day bind moom day bind te li muy bind bu déggee sàmba sàmba lay bind du dégg sàmba eh, bind demba masalan du dégg guy ga nettali daqaar ga bu fekkente ne kooku noonu la xam nañ ni kii fu mu déggee guy gi guy gi lay nettali bu déggee daqaar gi nekk la nettali daqaar gi ñu xam ne kii moom lii lay def mu ne fa saxeex kooku wéral la xaysu saa yoo xam te ne an feeñ na maanaam xadiis bi feeñ na xadis bi saa yu ñëwee ci mel noonu kon boo wax nga dëggal xadis bi wa minhu am na ci fard nisbiyin mooy ñaareelu ca xaaj bi bi qaydin ci tënk boo xam ne yoo def na ci sukkandikoo maanaam def na sukkandikoo ci tënk bu ñu tënkee mbir loolu la ñuy wax xadis maanaam lan eh, fardu nisbi nga xamante ne dafa am fu ñu tënkee mbir mi moo xam dañ ko tënke bi siqatan ci ku wor ñu ne bon fardu nis bi kon dañ nan far bi siqa aw an fulanin wala bok muy jele aw wala bok an muy jele fulanin ci diw manam comme par exemple dañ nan hadith bi kat kenn wu ko ci diw ku dul diw diw rek wetti solo ko ci diw même bu dee wax di ñu bari dégg nañ ko ñu bari solo nañ ko waaye kenn rek mom moo ko solooyee ci benn serigne particulièrement kooku lañuy wax kooku nisbi lay doon manam ñu diw kat ci diw rek lañ ko jele lol tam benen far misbi la aw balad wala bok, bi baladin manam ci ci ci ci balad moy ab dëkk manam ñu ne hadith eh, bi kat wa ñi dëkk riw sangam rek ño solo hadith bi wala ñi dëkk dëkk sangam rek ñoo ko solo masalan lol day am mu ne bu ko defee fa yaqrubu dana jege al awalu bu njëkk ba min fardin manam moy li wax fardun mutlaq day jege kon fard boobu bu boobaa bu boobaa day jege fardul mutlaq min fardin su fekkente ne ci kenn warat la tukkee maanaam fardul nisbi bi day jege euh, maanaam day jege kon bu njëg maanaam fard bu dee nisbi dañ koo tënk ci siqa ku wóor day jege kon euh, fardul mutlaq kon fardul mutlaq mu boobaa dañ ko koy dañ ko ci joyal bu fekkente ne min fardin ci kenn rek warat la tukkee day dañ daal di jegantoo wa hakada ni ki noonu as-salisu ñetteel bi moom tamit maanaam mooy fardun bi balat bu fekkente ne in fardan ndem kenn rek yurat lañ ci namm wala boog in fardan ndem ci kenn yurat la rote la rote maanaam su dee kenn rek lañ namm ci ne maanaam bu fekkente ne dañ ne waaw màkk rek a soloo xadis bi te fekk màkk boobu kenn nit rek a ko fa solowee dañ moom boobaat mook fardun mutlaq tam ñuy nuroo dégg nga buñ ne tamit kenn jëlewu ko ci diw lu dul diw su dee ci kooku rek la jóge tamit maanaam kon ñaareel bi tamit duggaale na ci biir kooka tamit fardun mutlaq lay daal di mujj doon maanaam kon fardun nis bi mën naa nekk fardun mutlaq su fekkee ci kenn nit rek la jóge lii mooy maanaa bayit bi euh, kon lii euh, mooy ñeenti bayit yi nga xamante ne moom lañu war a jàng ci suñu jotaay bi walilahi alhamd insha allahu taala walilahi alhamdu wal minna euh, moom mooy lu aju ci fardu ñeenti bayit yi la muy 188e bayit ba 191e muy ñeenti bayit yi euh, ñu nekk nag kon luy wax ci al afrad euh, kon moom mooy pluriel ci fard comme niñ ko waxee léegi fard mooy càppaacoli mooy kenn muy mooy càppaacoli ku wét dégg nga mooy koo xamante ne moom kenn kese la dafa wét nekkul amul kuko wetali kenn wetali wuko lol moy fard bok na ci tour borom bi subhanahu wa taala moy al fard allahumma inni as'aluka bi annaka anta allahul wahidul ya annaka anta allahul fardu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gis nga ñaan bobu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal ni ki de watna ni ci tour yàlla bi gëna mag la ñaane ndax fard gis nga al fardu samad waaw al ahadul fard samad wala fard fard moom ahad ak nuróowuñ mais sauf que fard day wane ak wéetaay ak càppaacul yi ni ki kenn rek la euh, kon fard mooy euh, xadis boo xamante ne kon mu ne kon al fardu léegi dafa am ñaari xaaj mooy lu ñuy wax fardu mutlaq ak fardu bi euh, fardu mutlaq al fardul mutlaq ak al fardul nisbi al fardul mutlaq moom lay wax ni mu ne imma mutlaqun mu ne kon daal dafay nekk loo xam ne mutlaq la mooy lan mu ne maa am mooy xadis boo xamante ne infarada dafa wéeti raawin aji solo bi yii ci moom euh, kon bépp xadis boo xamante ne kenn nit kese kese kese moo ko solo loolu lañuy wax fardul mutlaq moo xam nag fi mu solowee xadis bi balaa ñoo mën a tuddee mbir mi farad il faut mu nekk ne euh, obligé wuñ càllale gi chaîne bi fenn fu ci nekk kenn rek nekk fa déedéet wala mu am ci ñaari place déedéet bu amee benn place ci biir chaîne bi boo xamante ne kenn nit moo fa nekk loolu dañ koy daal di tuddee fard su fekkente ne nag kenn nit rek la ci lu ñu joyal bu boobaa kooku la ñuy tuddee mu mutlaq maanaam ci lu ñu joyal benn nit bii lañu xam moo nettali xadis bi autrement dit mooy kooku noonu maanaam mën na mën na ko waxee neneen mooy su fekkonte ne kooku existé wul woon wala kooku dafa dee laata muy nettaliwaat xadis bi xadis boobu dootu ñu ko xamati kenn du ko xam loolu moom mooy ndax lan ndax kooku rek moo ko nettali loolu la ñu tuddee fard mutlaq euh, loolu exemple bi ci gën a leer bi ci gën a màgg mooy xadis bi nga xamante ne mom mo nek ci njaal benn sahih imam al buxaari rahimahullah ànd ak siiwaayam siiwaayu xadis bi te moy hadith bi gën mag ci sharia ci l'islam buñ la laaje hadith bi gën mag ci sharia ci l'islam da nga nan hadith ban la innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa mom la imam al buxaari rahimahullah ubi sahiha mom la imam an-nawawi rahmalahu rahimahullah ubbee riyaadu salihin mom la ubi 40 an nawawi mom moy xadis euh, bi nga xamante ne moom la imaam euh, mm, euh, alxaafis Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi ubbi Umdatul Ahkam moom mooy xadis bi nga xamante ne mm, maanaam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah dani bu ma doon bind téere yelloo na buntu chapitre bu nekk nga bind ci xadis bi ubbee ko ko maanaam mooy xadis innamal a'malu binniyat jëf yëpp ci yéene yi la xataa subhaanallah comme niñ ko gisee ci qawaid yi al umur bi maqasidiha muy première qaida dañ koy wax tamit innama al amalu binniyat maanaam mooy xadisul amalu binniyat boobu xadis bu siiw boobu euh, maanaam kenn nit moo ko solo jële ko ci kenn euh, ndax alqama ibnu waqas al-laysi rahimahullah moom rek moo ko solo jële ko ci sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu niki noonu muhammad ibn ibrahim at-taymi rek moo ko solo jële ko ci alqama ah niki noonu yaxya ibnu said al ansari rahmatullah al jamia moom rek moom moo solo bi ko ci muhammad ibn ibrahim at-taymi rahimahullah kon so seetloo kon li moom mooy li ñu al fardu fardul mutlaq kenn rek moo ko solo jële ko ci ni obligé wul nag ñu nekk ñett ñi ñëpp toppee ci noonu obligé wul mais le simple fait que xadis bi yëpp ñëw maanaam ci kese benn nit rek madaarul xadis liñ naan madaarul xadis xadis bi yëpp di wërwërloo ci kenn te suñu defee suñu toppaatee càllale yi ñu am ci àdduna bi yëpp ci xadis bi dañuy gis ne lépp day wërwërloo jóge ci kenn nit loolu moom la ñu tuddee fardun kooku fard la mais lii moom la ñu tuddee tamit fardun mutlaq léegi euh, imam as-Suyuti rahimahullah euh, daane fa in su fekkente ne li dabtin ñeelu takk ba odaa dafa daf koo sori bu dee waajooju moom daa sori takk maanaam waaji daal moom fardu mutlaq xadis bi daal maanaam eh, eh, eh, dafa sori takk mu ne rodda dafay delloo xadis bi mu ne kon boobaa rodda dañuy delloo xadis bi maanaam fii li muy wax mooy de toute façon dañuy seet ki solo xadis bi ana moom mooy kan loolu la ñuy seet su fekkente ne koo xamante ne dafa mën a takk bon bu bu dee waa ji ab kàcckat la du waxkatu dëgg day faral di expliquer euh, dafa kàccoore wala yooyu noonu kooku kenn waxul ay waxam kooku mu bokkul ci ñi ñuy wax kaa bi li tax ñu wax mooy waa ji maandu mën na mais dafa takkam moo sori comme ibnu lahiya rahimahullah nga xam ne lu bari ci borom xam ne dañoo néewal doole ay xadisam dañ ko daay fal parce que tout simplement ay téeram dafa réeroon te moom dabtu kitaab la yoroon téere mi dañoo réeroon moo tax ñu moo tax ñuy jàpp ne xadis mi dañ daayif kooku par exemple ah, bu mel ku mel noonu hmm, kon rodda dañuy delloo xadis wa in yaqrub bu fekkente ne jegeñ na minhu ci takk maanaam euh, mooy comme li ñu wax xalla dabtuhu wala xafa dabtuhu كم نكو ها المرتضى في في في في في حده ما اتصل اسنا بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل اتترى بودي كون كوكو لا دنج نان فا حسن حسن كون دنج نان ريسبكت نا ها كونديشن يي خامي ني حديث بي حسن كون حسن لول تامن موي سو فيكنت ني نينن ني كو سولو تي موم ني اك ني مو سولو حديث بي تي موم ньоญو دغور نين لول موي كونديشن بي loolu loolu moom jarul sax leeral parce que de toute façon xadis pour mu wër il faut ñu xool dégg nga la bi naqli adlin dabitin an mislihi dégg nga bu dee pour mu wér bi naqli la qalla dabtuhu hmm? mais il faut mu nekk loo xamante ne ñoom ñëpp an maanaam lu ñu bon bon jële ko ci ku mel ni ñoom maanaam loolu la maanaam mooy au piir des cas benn maillon ci càllale gi dafa am rek koo xam ne dafa néew xelam dafa néew ni maanaam takkam dafa néew loolu la ñuy wax bu boobaa boobaa fa xasan dañuy daal di jàpp ne xadis bi kon xasan na aw wala bokk balaxa xadis bi jote ak waaw nit ki ci boppam kooku nga xam ne moom moo soloo càllale bi te nekku càppaacoli wéet ci solo ji mu soloo càllale gi ci bi mu soloo xadis bi mu balaxa mu jote ak dabta ak takk maanaam kon kon mu nekk koo xam te ne taamu dabt lay doon koo xam te ne ak takkam dafa mat mooy bi naqle adlin dabitin an yi kook fa sax fa sax wéeralal xadis boobu xayisu an saa yu ñëwee léegi fii mu am benn question boo xamante ne euh, maanaam mbir la moo xamante ne mat naa bàyyi xel mooy tey su fekkente ne nit ki euh, dafa solo moom benn càllal maanaam xadis bi ñu bari gaa indi nañ ko nga ne waaw nga ne waaye gis nañ ni am na ndollent ci càllale xadis bi loo xamante ne kenn nit rek moo ko solo am nañ ndollent ci càllale xadis bi maanaam ci ci ci pas ci càllale gi ci ci ci yaxu xadis bi loo xamante ne kenn nit rek moom moo ko solo te kooku noonu ku dëgër la hmm? léegi bu boobaa la ñu wax bu boobaa dañ naan la waaw loolu mu dolli boobaa dañ koy jàpp sukkandiku ko su dee waa ji saxeex la su dul su fekkente ne nag kooku ah, nekkul koo xamante ne du takk kat lu bari boobaa li mu wéetoo ah li mu wéetoo solo ko dañ naan xasan na bu fekkente ne nag du koo xamante ne dëgëru du de toute façon maanaam bu boobaa dañ naan li mu solo dafa daif léegi mu des tamit lool bon am na nag ay maanaam mbir mi loolu mooy d'une manière général loolu mooy d'une manière général sauf que euh, incha allah ñu gis li gën a yaatu ci loolu mooy ci bu ñu yegsee ci liy wax ci ziyaadatu siqaat loolu dinañ gën a développer partie boobu incha allahu taala euh, parce que su fekkente ne ñaari nit ñu dëgër kii wax lii kiy wax leneen loolu dañuy wax ittiraab dafa am manam manam masala bobu daal inshallah allah dinañ ko gëna develop buñ ci yexé inshallah allahu taala léegi Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah taala dafa wax ne هذه أنواع من فرد الراوي بالحديث هذه أنواع من فرا من انفراد الراوي بالحديث yi ay xeet la ci wéetaayu aji solo ji ci xadis wa hiya takmilun lil anwaa al xamsati saabiqa mu ne te day mat day mottali li nga xamante ne moom mooy xeeti juróomi yi nga xamante ne mooy juróomi xeet yi ñu gisoon mooy yi ñu gisoon ci jotaay yi shaaz mahfuz munkar maaruf ak matruk léegi bii daf koy daf daf leen di mottali hmm? euh, fal xadiisul fard waa maanaam euh, loolu lu am solo la alhamdulilah euh, mottali gi mu leen di mottali nag gis nga leer na parce que comme que yooyu yëpp dañuy wax maanaam dafa nekk loo xamante ne lu ëpp ci wàllu fardu ci wàllu loo xamante ne benn nit moo ci wéet soit dafa wéet ci solo loo xamante ne ñu ko gën a dëgër dañ dañoo solo leneen li te moom dëgër na ñu tuddee ko charge du dëgg bi ci des ñu tuddee ko mahfuz euh, wala boog moom dafa daif dëgërut mu wéet ci solo loo xamante ne keneen a ko soloo ko gën a dëgër mu ñu tuddee ko nan munkar bi ci des ñu tuddee ko maaruf euh, fii nag léegi euh, ak tam matruk mooy koo xam ne moom de toute façon ni mu mel kay caractéristiques la yoo xamante ne xadis boobu moom dañ koy duñ ko dañ koy bàyyi ndax dafa wéet ci solo ko léegi nag bii pa ñuy wax ci loo xamante ne maanaam ngir mottale comme que lu ëpp ci cadre yi aju ci wàllu nit ki su wéetee ci xadis traité woon nañ ko ci munka ci chaz ak euh, ci chaz ak ci munkar ak maaruf ci matruk léegi nag mu ñëw indi loo xamante ne fard kese kese c'est-à-dire que leneen mbir la yu aju ci wàllu wéetaay yu aju ci wàllu wéetaay moo tax mu indi rek fardul mutlaq ak fardul nisbi parce que yii ci des yooyu jàllal dañ koo pare gis nga euh, mu آه، فالحديث الفرد بالإطلاق من غير قيد هو من فرد به راو واحد وإن تعدد الطرق إليه من حديث بوخم تنا فرد لا تي لونو جويل مانام بالإطلاق تي تنكو نيكو تي دارا موي حديث بوخم تنا دافا كين رك مو ويت تي سولوكو donte yoon yi jëm ci waajooju dañoo bari donte yoon yi jëm ci waajooju dafa bari comme par exemple exemple bi nga xamante ne moom lañ joxe sànq mooy xadisu innamal a'malu yet bi ànd ak ne ba ci am Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullah ñi ci des ñëpp par benn benn rek mais yoon yi jugi ci bi jaar ci Yahya ibn Sa'id al-Ansari yu baree baree bari la am na ñu dem ba ni deux cent deux cent nit ay taalibe solo nañ ko ci Yaxya ibn Sa'id al bokk na ci ñoom Sufyan na ci imaamu Malik bokk euh, yoon yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ba ci Yaxya ibn Sa'id al gis nga ni ñu bare pourtant ànd ak loolu ànd ak loolu lan xadis bi maanaam euh, fard lañ koy tuddee ba tey mu ne wa hukmuhu annahu idha kana ar-rawi thiqat thiqat ida kaana raawi siqatun siqatan daabitan kaana xadiisu saxiixan mooy atte mooy lii rek su fekkete ne ki soloo xadis bi dafa nekk siqa nekk ku takk kuy mën a takk kook xadis bi day nekk saxiix wa in kaana mutawassitan fi dabti wal xifd kaana al su fekkente ne moom dafa nekk digg dóomu ci takk ak ci mokkal maanaam ci wattu kooku xadis boobu daal day daal di nekk xasan mu ne wa in kaana gayru daabitin kaana xadis mardudan mu ne su fekkente ne nag du mën nekkul kuy mën di takk lu bari tamit waa ji duy takk boobaa xadis bi dañ ko daal di delloo rek mu ne waqad sabaqa fii naawi shaadh anna al-xaakim yusamma maa yanfaridu bihi siqatu shaadhan wa in lam yuxaalifhu gayru mu ne jiitu woon na nag ci xeetu shaadh biñ ci tollee ne alxaakim imam alxaakim abu abdullah an-naysaburi rahimahullah dafay tuddee lépp loo xamante ne kenn même bu fekkente ne siqa la maanaam dafa wéet ci xadis bi même bu dee amul kenn ku wuteeg moom moom daf ko tuddee chaz maanaam kon ci kaw loolu kon chaz ci côté boobu loolu lay tuddee maanaam loolu la tuddee chaz moom maanaam loolu da koy tuddee chaz yaa ngi dégg léegi imam as-Suyuti rahimahullahu taala bokk na ci eh, maanaam li jóge nañ kon léegi ci lan al fardul mutlaq legi mu ne bok na ci wamin bu bok na ci fardu yi ñuy wax manam nisbiyun moy fardu nisbi mu la wax al fardu nisbi koku benen xaaj la a a maanaam nisbi yi lu tax wax nisbi mu ne bi xaydi ndax ci manam ci teunk gi ñuko teunk nisbi mooy lu ñu askanonte moy lo xamne dañ ko fenn loolu moom mooy fardu nisbi mooy loolu mooy an nisbi mooy ndax dañ koo askanale ci benn wàll rek goo xam ne gu mu jagoo la voilà nga xamante ne ak wàllu googu lu mën a doon rek lu ñu askanale fenn rek mooy nisbi mooy an nasabu mooy askan gis nga mu ne nisbatun ila nangam mooy dañ ko ko ask dañ ko askanale ci nangam moo tax ñu naan ko nangam yaa ngi dégg ah, léegi ah, alfardul nis bii nag dafa am lu ñu tuddee mu ne bi xay di ci tënk gi ñu tënk loo xam ne yoo tamit dañ ko ciy sukkandikoo maanaam ci tënk lu ñuy sukkandikoo lu ñuy jàpp ne maanaam dañoo sukkandikoo ci tënk loolu moom moo tax ñu wax ñu mu ne ko tuddee nis bii léegi bu fekkente ne ah, bi si xatin la Euh, loolu maanaam ci koo xamante ne siqa la koo xamante ne siqa la maanaam mooy nit ñi kii dafa solo xadis bi waaye ci siqa la solowee kooku moom mooy xaaj bu njëkk bi loolu moom mooy comme li nga xamante ne moom la imam al euh, buxaari rahimahullahu taala solowee ci saxiixam ci kitaabul maghazi baabu ghazwatul khandaq wa hiya al ahzab hadith hadith bi bok la hadith bi mu ci indi moy bim nan hadathana naan ibn yahya qala hadathana abd al wahid ibn ayman an abihi annahu qala ataytu jabiran radiyallahu anhu fa qala inna yawm al khandaq naxfiru fa uridat kudyatun shadidatun fa jaau nnabiya sallallahu alayhi wa sallam fa qaaluu هذه كدية عرضت في الخندق فقال صلى الله عليه وسلم أنا نازل حديث بي nga xamante ne kon ci càllale bi ñu la la wax man moom daf ni Xallaad ibnu Yaxya moo ñu moom mu ne Abdul Wahid ibnu moo ñu nettali mu jël ko ci papam kon Ayman imagine léegi kon Abdul Wahid ibnu Ayman moo ko jëlee ci Ayman mu jël maanaam moo ko jëlee ci papam mu jël ko mu ne man mu ne damaa ñëw ci jaabir ataytu jaabir radiallahu anhu jaabir ibn abdullah radiallahu anhu mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ñun yo mu muy nettali lu yenent bi sallallahu alayhi wasallam bisub xandaq mu ne ñun bisub xandaq maanaam xare boobu mooy xaswatul ahzab mooy xandaq am dañ doon uh, um, uh, gas ay kàmb yoo xamante ne ngir uh, wër maanaam li daal li fatt côté bi nga xamante ne côté Medina bi nga xam ne montagne yi nekkuñu fa parce que Medina daanaka maanaam montagne dañ koo xaw a képp tuuti ba mu des benn partie partie boobu nag la ñu waroon a tëj xar ko comme li Salman Al Farsi radiyallahu moom moo ko joxe idée bi parce que gars yi dañ doon ñëw te ñoom xamuñu woon nu ñuy def te dañoo bari woon ñu baree bare baree bari lañ lu mat douze mille personnes ñëw ay armée pour ñëw attaquer Medina te dañ leen di bett ba pare gars yi dañoo am ci ñoom ay renseignements yu bari léegi yeneen bi saa Salman daal ñun dey bu ñu lii daan daal dañuy def lu ñu tuddee xandaq maam xandaq naa ñoo xandaq ñun looy luy xandaq ñoo xandaq mooy da defar dañuy tabax dañuy dañuy gas kamb ngand yoo xamante ne gars yi duñ ko mën a jéggi maanaam seen fas yi duñ ko mën a jéggi ñu ne acca kon nañ commencé ñuy commencé def affaire boobu léegi mu ne ñun mu ne nag Jaabir ibn Abdallah radiyallahu anhu ne bis boobu nag naxfiru dañ doon gas mu ne fa awradat kudyatun fa awradat kudyatun shadida maanaam ñu daal Euh, am maanaam am xeer boo xamante ne dafa dëgër maanaam xeer bu dëgër a dëgër boo xamante ne ñun mënuñu ko woon gas maanaam mu nekk mënuñu ko woon euh, toj ñu ñëw ci yonent bi sallallahu wax ko ko neen bi ñuy wax ko ko boo xoolee Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu jamono jooju tamit xale la woon aussi maanaam nekkul woon ku am doole ku ñu màgg daal en tout cas màgguñu woon duñu woon ay mag euh, bi ñu yegsee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen aca xaaral ma maanaam daal koy dóor maanaam dóor ko mu toj xeer boobu sallallahu alayhi wa léegi euh, xadis bi boo xoolee kon Abdul Wahid bi rek moom moo ko solo jële ko ci baayam Abdul Wahid ibn Ayman moom rek ko solo ci baayam ci xadis ci xadiisu jaabir ibn abdullah radiallahu anhuma waaye kudul moom rek kudul jaabir ibn abdullah radiallahu anhuma xadiis bi jaare na ci yeneeni saxaaba yoo xam te ne soloo nañ ko ci ñoom mais bu dee ci yoonu jaabir ibn abdullah radiallahu anhuma loolu moom kenn benn nit rek maanaam ci benn càlla la rek ñu la ñëwee mooy yoonu lan yoonu abdul wahid ibn ayman bi mu jaare ko ci kan ci hmm? baayam mu jële ko ci Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu mu ne kon ah, bi siqatin loolu mooy siqa aw an fulaanin wala boog jële ko ci diw mooy comme li ñu wax loolu tamit ba tey da nga koy gis maanaam comme exemple bi tamit day day day jaar foofu mooy ne ci diw sànkam daal diw rek ko ko ci solowee mooy comme ci Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu Abdul Wahid kese moo ko solowee jële ko ci baayam loolu exemple boobu tamit daf ci doxaale Ah, ah aw wala boog aw balat wala boog ab dëkk wala boog ab dëkk bon bu dee ab dëkk kooku ñaari façon lay amee mu ah, njëkk bi mooy waa dëkk bi yépp ñoom benn nit rek lañ ko solowee maanaam xadis bi par exemple xadis bi waa dëkk bi yëpp yëpp yëpp yëpp ci kenn rek kenn rek moo ko ci moom lañ ko solowee jële ko ci moom loolu moom mooy exemple comme ba tey eh, imaam al Buxaari rahimahullah li mu solowee ci euh, euh, wala bokk euh, xadis boo xamante ne ah, imam alxaakim rahimahullah joxe na ko ci exemple exemple la voilà bu alxaakim la naam moom moo ko joxe exemple la boo xamante ne eh, mi ngi ci eh, maanaam maarifatu ulumul xadis raxma eh, imam alxaakim rahimahullah exemple bi mu joxe mooy xadis bi nga xamante ne dafa jaare ci abdullah ibnu burayda mu jële ko ci papa muy burayda الأسلمي رضي الله عنه من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القضاء ثلاثة فاثنان في النار وواحد في الجنة فأما الاثنان فقاض قضى بغير الحق وهو يعلم فهو في النار وهو يعلم فهو في النار وقاض قضى بغير حق وهو لا يعلم فهو في النار وأما الواحد الذي هو في الجنة فقاض قضى بالحق فهو في الجنة xadis boo xamante ne maanaam mooy xadis bi Abdullah ibnu ibnu maanaam Burayda solo ci baayam radiyallahu anhu mu ne dama dégg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñi àtte ñett rek lañ ñaari safara la ñuy nekk ñaari a nga biir safara benn bi moom aljanna ajjana ay këram mu ne ñaar ñi ñi nga xam ne ñoom dañuy dem safara mooy attekat boo xamante ne moom dafa atte ci lu dul dëgg te fekk xam na ne li muy atte du dëgg kooku day dem safara allah allah allah yal nañu yàlla sàmm am boo xamante ne day atte ci dëgg waaye xamul na li muy atte du dëgg kooku day dem safara mu am attekat boo xamante ne nag moom muy dem aljana mooy ki nga xamante ne day atte ci dëgg te xam maanaam kooku moom mi ngi biir aljana ñaar yooyu kon kooku noonu la kon nit ki maanaam mënul sukkandikoo rek ci ne xaw ma woon bi may atte nangam moo tax déedéet ah, ah imam alxaakim rahimahullah bi mu indee xadis bi ci ci ci maarifatu ulum alxadis dafa ne faqad tafarrada bi riwayati hada alxadis alxurasaniyuna waaw mu ne ruwaatuhu an axirihim marawisa xuraasaan waa xuraasaan ñoom ñoo wéetoo xadis bi ruwa maanaam ruwaat yëpp ñi solo xadis bi yëpp ba ci maanaam ba ci ku mujj ja ñoom ñëpp marwal marwu lañ dëkk maanaam ca xuraasaan parce kon maanaam waa dëkk bii rek ñoom ñoo solo xadis bi voilà muy xadis boo xamante ne kon waa dëkk bi rek ñoo ko solo kon ñu jële ko ba ci abdallah ba ci burayda al aslami radiyallahu anhu abdallah voilà yaa loolu kon kooku benn la am na beneen tamit xeetu balat maanaam ah, mooy nisbiyun mais ah, euh, tafarradu xam nga bii nii tafarradu ahlu baladin an shaxsin la maanaam ahlu balad waa bal waa dëkk bi yëpp ñoo solo xadis bi ci kenn léegi loolu benn affaire la mooy waa dëkk bii rek rek rek rek mboolem càllale yi boo ko xoolee da ngay gis ne Euh, euh, ci ci dëkk booba maanaam comme xaalis bi ñu la jox exemple waa Marwa ngay gis ñoom ñoo ko solo càllale bi boo xoolee ñépp da ngay gis waa Marwa rek la ñoo ko solo jële ko ci Abdullah ibn Burayda mu jële ko ci Burayda al-Aslami radiyallahu anhu léegi tey bu ñu seetle e- am na beneen exemple boo xam ne moom tout à fait le contraire la mooy tafarradu shakhsun an ahli baladin mooy contraire bi maanaam mooy kenn rek moo wéet solo ko ci waa dëkk booba kooku tamit ba tey maanaam euh, euh, euh, alxaafis ibn xajar nag raximahullah ci annukat ala kitaabin salaah raximahullah dañuy mais ñooñu loolu lu néew la kaa yu raar la mu am tamit ba tey balat maanaam am na ñetteel sax mooy tafarrudu ahli baladin an ahli baladin axar mooy wéetu bu benn waa benn dëkk kese solo xadis bi wéeti ko ci solo ko jële ko ci beneen waa dëkk ñoom kese maanaam euh, comme par exemple xadis bi nga xamante ne mooy xadis yaay Aïcha bi radiyallahu anha euh, nga xam ne imam at-Tirmidhi rahimahullah moom solo na ko bi mu naan salla ala Suhayl ibn al-Bayda fi l-masjid ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salla sallallahu alayhi wa sallam ala Suhayl ibn al-Bayda fi l-masjid ne Suhayl ibn al-Bayda yonent radiyallahu yeneen yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo jullee ci biir jumaa ji ci biir jàkka ji la ko jullee maanaam julleewu ko ci biir jàkka ji ci biir jàkka ji lañ ko dugal jullee ko fa bi mu àdduna alxaakim rahimahullah daal ni tafarrada ahlul madinati bi hadhihi sunna waa madina rek wéetoo ci solo xadis bi maanaam mooy boo xoolee kon waa madina kese kese kese xadis bi xame ko beneen dëkk bu dul madina madina rek lañ ko xame euh, loolu benn exemple la mais am na beneen exemple bu gën a bu gën a gën a remarquable mooy mooy exemple bi imam alxaakim rahimahullah indi moom ci boppam ci xadisu xusayn euh, ibnu daawud al balxi mu ne xaddatana al fudayl ibnu iyad moom mu ne qaala xaddatana mansour maanaam mooy ibnu mutamir mooy ibnu yazid an naxee an alqama mooy ibnu yazid ah, alqamat ibnu qays annaxaay an abdullahi ibnu mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaq mu ne anna rasul qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yaqulu llahu azza wa jalla li dunya ya dunya ixdimi man xadamani wa at'ibi ya dunya man xadamaki mu ne ah, sa bur borom bam bur yàlla subhanahu wa taala dafay wax àdduna nan ko yow àdduna liggéeyalal képp ku may liggéeyal man maanaam nekkal mbindaanu képp koo xam ne man dafa jóg di ma liggéeyal man waaye sonalal tegal coono yow àdduna képp koo xam ne yow lay yow yow lay liggéeyal allah allah imam alxaakim rahimahullah ci maarifatul xadis daf ni hada alxadis min min afraad alxurasaniyina an almakkiyina fa inna alxusayn ibnu daawuda albalxi walfudayl ibnu iyaad idaadun fi lmakkiyina maanaam hadith mune hadith bi bok na ci afrad yi nga xamne manam maanaam fard yi nga xamne khurasani khurasani yu ne dañ ko jëlé ci makki yu ne parce que al al husayn ibn daud al balkhi bi nga xamante mom mo nek ci càllalay hadith bi ak fudayl ibn ayaad bi ñom wa màkka lañ du deug kon ñoo wa màkka lañ mais legi nañ set euh ñom buñ leen bolé ci wa màkka legi tay nañ set hadith bi hadith bi en fait da ngay gis ne waa xuraasaan ñoom dañ ko jëlee ci waa màkka dañoo wéet ci soloo ko ci waa màkka mais waa màkka tamit dañoo wéet ci soloo ko ci waa kuufa ndax ñi ci des ci càllale gi boo jógee jëlee Fudayl ibn Iyaad nga jël Mansour ibn al nga jël Ibrahima an-Nakha'i Alqamat ibn Abi Waqqas al-Laythi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum ñii ñëpp waa kuufa lañ kon da gis ne xadis bi hmm? xadis bi kon ñeen rek dañ ko jële ci ñee ci des mu ne bu boobaa loolu lay wax nag mu ne fa yàquru bu kon dana jege al awalu bu njëkk bi min fardin ci benn ci kenn warat bu rotee maanaam al awalu mooy bu njëkk bi mooy mutlaq fardul mutlaq xadis bi dina ko jege su fekkente ne xadis bi dafa rote jóge ci kenn kese dafa ñëw rek jóge ci kenn maanaam su fekkente ne ci siqa bi comme bu doon maanaam xadis boo xamante ne comme niñ ko gisee nga xamante ne dañ naan xadis bi innamal amalu binniyat day alqama ibnu abi waq alqamat ibnu waqas allaysi rahimahullah rek a ko soloo ci sayyidna omar ibn alxatab radiallahu anhu ñu ñu wax loolu ñu ne kon moom siqa an siqa kon dégg nga fula maanaam wala boog an fulaan bi siqaten wala bi ful an fulaan maanaam bi siqa nag ak ak ak an fulaan li leen wutale lii la te loolu lu ma ta bàyyi xel la mooy xadis bi mën nañ koo jëlee ci ay yoon yu baree bare loolu c'est c'est c'est très important il faut que ñu joxe ci eh, exemple euh, mooy xadis boo xamante ne kenn rek moo ko solo euh, ci ku wóor maanaam kenn rek moo ko solo te kenn rek moo ko ci ku wóor waaye ñeneen ñi ko solo yëpp xadis bi bari nañu ko solo mais kenn solowu ko ci ku wóor d'ailleurs euh, comme par exemple bokk na ci. xadis bi nekk ci imam muslim rahimahullah saxi imam muslim rahimahullahu taala bi nga xam ne dañ ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bi abu abu waqid al-laysi la radiyallahu anhu mu ne kaana mu ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fil ad fil adha wal fitr bi qaaf waqtarabat as-sa'a xadis bi damrata ibnu said maanaam mooy de xadis bi dane yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, tis tàkki euh, tëbaski ak korite bu daan julli julli yooyu daf ci daan tari qaaf sóortu qaaf ak sóortu iqtarabati saatu wan shaqal qamar yooyu saar dara dog la da ci daan tari ci tabaski ak korite xadis bi mi ngi ci saxee imam muslim rahimahullah ak yeneen i téere waaye bu ñu xoolee xadis bi kenn rek a ko solo muy damra Euh, euh, damrat ibnu said bi kese moo ko soloo jële ko ci ubaydullah ibnu abdullah mu jële ko ci abu waqid al-laythi radiyallahu anhu sinon yeneen ñeneen ñi nga xamante ne euh, ñu wóor ñépp ku dul damra solowul xadis bi jële ko ci ah maanaam solowul xadis bi ndax comme abdullah ibnu lahiya bi ñu doon wax maanaam moom solo na ko ci Xaalid ibn Yazid mu jële ko ci Urwa mu jële ko ci Aïcha radiyallahu anha ci imam ad-Daraqutni solo na càllale googu par exemple mais soo xoolee kon comme ibnu Layya ah, dafa daif pourtant solo na càllale gi ci beneen yoon waaye kon xadis bi du fardun mutlaq am na yeneen yoon yu mu am mais ànd ak loolu yépp ci càllale gi rek la amee ko soloo ku wér jële ko ci ah, ah, ci euh, euh, Ubaydullah Abdullah moom mu jëlee ko ci Abu Waaqid al-Laythi loolu moom mooy loolu moom moo différence ci siqa wala an fulaan kese bu dee an fulaan moom mooy diw diw rek ko soloo ci moom mooy comme exemple bi ñu joxe woon ci Abdul Wahid ibn Ayman mu jël ko ci bàyyi mu jël ko ci Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ànd ak ne xadis boobu ñëw na ci yeneen i càllale yu wér kon loolu moo différencier entre siq bi siqat ak wala an fulaan léegi nag su fekkente ne xadis bii maanaam euh, euh, su fekkente ne ci siqa wala ci fulaan wala ah Euh, euh, maanaam ci kenn rek la jóge maanaam ci siqa siqa mais min fardin ci kenn rek la jóge warat la rote bu boobaa dañuy wax ne xadis boobu day daal di jegeñ lan day daal di jegeñ ah day daal di jegeñ day daal di nekk loo xamante ne moom ak fardu talak ñooy nuroo moom ak fardu mutlaq ñooy nuroo yaa ngi dégg mu ne wa hakaza ni ki noonu as-salisu ñetteel bi mooy fardu balad maanaam fardu boo xamante ne maanaam tafarrada bi ahlul balad benn maanaam ay ay waa benn dëkk sàngam rek ñoom ñoo solo xadis bi waaye kenn nit rek ci dëkk boobu moo solo xadis bi bu boobaa day daal di moom tamit saali si ñetteel boobu tamit day daal di nekk loo xam ne moom ak bi ci des benn lay doon maanaam mook fardu mutlaq day daal di mujj doon day nekk fardu nis bi ci wàllu balad ci wàllu dëkk mais day nekk tamit en même temps fardu mutlaq mooy infardan bu fekkente nag ci kenn rek yurat la lañ ko nammee maanaam lañ namm ne bu ñu waxee fard boobu kenn lañ ci wax parce que léeg-léeg dañuy wax ne diw kat diw xadis bi ñoom diw rek ko so maanaam waa Màkka rek ko soloo ci waa Medina par exemple waa Màkka rek ko soloo xadis bi fekk Màkka boobu benn nit rek ko fa soloo loolu kon loolu euh, euh, loolu moom moo tax ñu wax wala boog yurat fii mën na tekki tamit maanaam bu jógee ci warada maanaam mu soit dafa jógee ci arada bi tekki namm nañ ko namm na wala ba mu jóge ci hmm? ci euh, warada bi tekki rot na wàcc na yegsi na dégg euh, euh, al cheikh Ahmed Shakir rahimahullahu taala fii tamit maanaam mu ne min al fard aydan al fardu nisbi wa huwa bi nisbatin bi bi bi nisbatin xaasa mu ne bokk na ci fard ba tey an nis bi mooy fard boo xamante ne dañ koo tënk ci euh, nisbatan xaassa mooy loo xam ne dañ ko askanale lu particulier ci dara mun ne fa imma an yuqaalu lam yarwihi siqatun illa fulaan soit dañ naan xadis bi kat ku wóor solowu ko lu dul diw wa hada xukmuhu fardul hmm, mutlaq kooku gis nga mutlaq la kooku àtteem mooy fardul mutlaq ba tey moom mooy comme exemple mooy biñ joxe ci Eh, xadisu abu waqid allaysi bi radiallahu anhu damurata ibnu saar rek ko solo jële ko ci kan ci ubaydullah ibn abdullah moom mu jële ko ci abu abdullah moom mu jële ko ci eh, eh, abu waqid allaysi radiallahu kon moo seetloo moom rek moo soloo xadis bi ci siqa kuy wóor kenn rek ko soloo mu nekk ku wóor comme moom kese kese kese kese moom moo ko soloo di ko wóor ñeneen ñi ko soloo ñëpp kenn wóoru ci comme ku mel ne ibnu lahiya moom donte solo na xadis bi ci yoonu xadis yi Aisha radiyallahu anha comme ni ko moom ad-Darqutni rahimahullah inde ànd ak loolu yëpp maanaam moom xadis boobu wérut comme wérul nag dañ naan kenn rek ci xadis bi ci benn yoon rek la ñëwee wér boobu dañ koy tuddee fard hmm, bi siqa waaye bu boobaa dañ koy tuddee tamit fardun fardu waaye boobu atte mooy atte fardul mutlaq la moo tax mu wax imam as-Suyuti wax fa yaqrubul awwalu dégg nga mu ne li anna xayra siqa laa tutabar riwaayatuhu loolu nag boo gisee mooy dafa fekk ne ku dul siqa kook kenn du sukkandikoo kenn du bàyyi xel lan ay lu mu solo mu ne ko fa ka anna siqata infarada bihi infiradan mutlaqan mu ne parce que dafa mel ni kon ne e, siqa bi dafa wéetoog moom wéetooguñ joyal muy e, farad mutlaq wa imma in yuqaalu lam yarwihi an fulanun illa fulan wala boog léeg-léeg fardu nisbi day nekk loo xam ne dañ naan kenn solo ko jëlee ko ci diw lu dul diw comme exemple bi ñu joxe woon ci Abdul Wahid ibn Ayman mu jëlee ko ci kan papaam Ayman mu jëlee ko ci Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu radiyallahu anhuma mu ne wa hada yotabaru fihi maa yotabaru fi riwayat al uxra loolu nag dañ ciy bàyyi xel rek dañ ciy xalam li nga xam ne moom xalam ci yeneen riwayat yi mu ne in kaana al isnaadu saxeexan kaana saxeexan su càllale gi nekkee saxeex xadis bi dañ naan saxeex na wa in xaalafa xayruhu kaana shazan su fekkente ne xadis bi dafa wuuteeg keneen maanaam moom dafa nekk koo xamante ne dafa solo xadis bi jële ko ci kooka waaye mu wuute keneen loolu charge day doon wa hakaza wa imma in yuqaal hada al xadis min afraadil basriyiina gis nga ki bi masalan maanaam léeg-léeg dañ naan xadis bi kat ci afraadul basriyiina yi la bokk maanaam ne waa basara rek ñoom ñoo ko ñoo ko solo masalan voilà من وهكذا حكم الفرد المطلق من نيكي حكم وهكذا نيكي نون حكمه اك اتم غيسني حكمه اتم حكم الفرد المطلق موي اتك فرد المطلق بوبو تاميت ياغي ديغ كون لولو موم موي ليغا خامتيني ا موم مو اديو تي بونتو بيغا خامتيني موي سونو بونتو بي ولي لا الحمد وال ا وال منا لغي ليغا خامتيني تاميت كون مرنا باي خال موي ان شاء الله كوم دينكو فرد اك غريب Euh, am nañu ak duggalante gu gu gu tar ba nga xamante ne daanaka bu ñu waxee xarib dañ ciy jublu fard mais ñoom ànd ak ne ñoom ñaar euh, ci ni ñu exprimer woo am na différence ci parfois bu ñuy wax et cetera mais yooyu yëpp dinañ ko gis incha allah bu ñu yegsee ci loolu. Euh, léegi fi nga xamante ne moom la ñu mën a njort ne dañ fa fekk tout le temps ay xadis yoo xam ne fard lañ maanaam yu bari yoo xam ne buñ fa buñ fa seetlee dinañ fa gis xadis fard bokk na ci jaami imam at-Tirmidhi rahimahullah ak musnad bu imam al albazar rahimahullah fof tam bari duñ fay fekkee mooy imam al-bazzar moy imam aboubacar ahmad ibn amr ibn abd al-khaliq al-bazzar al-basri àdduna deux cent quatre-vingt-seize ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam niki nonu imam at-Tabari imam at-Tabarani rahimahullahu taala ci mu'jam yi surtout al awsat mu'jam al awsat al mu'jam al awsat fof bari luñ lu ñu fay fekk al afra hadith yo xamne fard lañ mooy moom at-Tabaraani rahimahullah mi ngi génn àdduna 360 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy al imaam Abul Qaasim Souleymane ibn Ahmad ibn Ayyub at euh, euh, bind na téere boo xam ne al afraad la tudd imaam as abu imaam abu Souleymane euh, maanaam imaam Abu Daawuda Souleymane ibn Ashraf as-Sijistaani rahimahullah téere boo xam ne ci fard yi la ko def mu tudd as-sunan allati tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlu baldatin maanaam sunna yi sunnan maanaam mooy xadis yi nga xamante ne ah, ah, ke eh, càll maanaam xadis boobu ci bu yoo nga xamante ne kenn maanaam eh, waa dëkk sàngam rek ñoo ko solo ab dëkk rek ñoo ko solo kon lii maanaam moom mooy li nga xamante ne moom aju ci wàllu fard kon fard